liggéey ci ay élection doon lu ñu faral di gis ci candidat yi ndaw ñi bokk ci ñi nga xamante ne ni ñoom la ñuy gën a waxal ñoom ñi leen di politiciens yi li ëpp ci ñoom di diggée ni bis ñu jotee nguur gi dinañ créer ay emplois yu bari ngir mën a xeex ndool mi. la jeunesse n'est plus l'avenir, ndaw ñi nekkatuñu rek ëllëg réew mi waaye ñoom ñooy teyu réew mi moo tax ma fas yéene doon président bi indi saafara ci seen ñàkkum xëy. de manière résolue à la de l'emploi. Sénégal di jot at bu ne li ëpp si ñaar téeméeri junni xëy taux de chômage bi jógee ci 22 virgule 9 pour cent ci atum 2022 wàcc ba 19 virgule 5 pour cent ci atum 2023 suñu sukkandikoo ci waa ANSD. léeg-léeg ñu dégg ñenn ñi naan dañuy amal ay programme yii di jural réew mi fukki junni xëy ak juróom jàpp ñaar fukki junni naam am na solo waaye loolu doyut ngir saafara ñàkkum xëyu ndaw ñi moo tax faw ñu dem ba ñaar téeméeri junni xëy. ñaari téeméeri junni xëy at bu jot nara doon lu jafe ndax bànqaas gii di organisation internationale du travail ci rapport bi mu jot a siiwal mu ngi xamle ni lu tolloog ñaari millions ngi doomi aadama. ñoo nar nekk ci utum liggéey ci atum 2024 bi ci atum 2024 bi ba tey taux de chômage bi ci àdduna bi nekk ci 5 virgule 2 pour cent wóoroog ci atum 2023 bi mu wàccee ba 5 virgule 1 pour cent Sénégal taux de croissance tolloog 9 virgule 20 pour cent teg si li ëpp ci population bi 19 ans lañ daal di am ndool gi wéy di am doole.